الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي di ziara suñu kilifa gi ñu bokkal jataay bi Cheikh Mouhamadul Mahfouz bi ko ñaanal suñu aar ko waaye sàmm képp koo xamee ne dangaa nekk ci toolub lislaam di ko bayal sàmm jullit ñépp te def ci àdduna bi jàmm tey baalu àq ñépp nag ndax bis bi bisu baalante àq la di ñaan suñ borom boo ñu jéggal waaye itam bisub sant yàlla la kon dañ ciy sant yàlla bu baax ndax ku sant suñ borom nee na ma dolli ko danoo génn ci weer wu tedd weer wu màgg lool boo xamee ne nag ku ci génn ku ne war ngaa am loo la waroo mel na rek jaaroo ci weeru koor ba génn ko waaye dafa am loo war a génnaale ndax weeru koor école lislaam la école boo xamee ne lislaam moo ko moo ko tabax ngir am yum cay jàngale kon képp ku ci jàng ba génn am na loo war a génnaale loo xamee ne dafa war a taxaw yow saa su nekk ndax suñ borom jaamu yàlla mu santaane am na lu tax mu santaane ko ndax moom bu ko ñëpp doon jaamu du ko jariñ dara waaye bu ko ñëpp doon mooy itam du ko wàññi dara kon jariñ li ci ñun lay dellusi waaye ñàkk boobu jaamu lor li itam ci ñun lay dellusi bokk na ci nag liñ mën a jëlee ci weeru ko nga xam ne dafa war a taxaw ñun ginnaaw weer wi ñuy ànd ak moom mooy jaamu yàlla bu mat sëkk waaye bu sell ndax sellal jaamu yàlla mooy tax seen boroom nangu ko sellal ci weeru koor dafa leer nañ ndax ku ci nekk day bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jaxasoo te ku neex ci ku ku neexoon ci ñun bu wéetee def ko te kenn kenn du xam ne wóorut waaye kon ci muy bàyyi xel mooy yàlla yàlla lay bàyyi xel ba bu wéetoon itam du ko tax a lekk du ko tax a naan du ko du ko tax a def loo xamee ni da koy dogloo kon sellal ci weeru koor lu leer la yépp ko xam loolu moo tax alayhi salaatu salaam wax ci xadis boo xamee ne suñ boroom moo ko wax muy xadisul qudsi jëfi doomu aadama yépp ñeel na ko ba mu des koor moom man yàlla may boroom maa koy fayal sama bopp ndax jaam bi day bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi ay bànneex ngirëm sama jëmm man yàlla kon sellal lu leer la ci weeru koor kullu amal ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii ajzi bihi yadaau taamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli alayhi salaatu wasalaam dellu wax ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi képp koo xam ne weer na woor na weeru koor teg ko ci gëm yàlla ndax ay jëf lu mu bari bari te gëm yàlla lelu ko kenn du ko nangu waaye itam def ko ngir jëmmi yàlla donc def ko ngir ngistal nee na ku def loolu ngir sàkku ca tuyaaba suñu boroom dina ko jéggal ay bàkkaaram yépp kon sellal boobu dañ ko war a dana war a tax moom ginnaaw weeru koor lépp lu ñuy def ñu bàyyi ci xel yàlla def ko ngir jëmmi yàlla dong ndax nit ñi kenn mënut a dab seen bànneex te ngërëmul yàlla rek mooy jariñ waaye bokk na ci meññet mi nga xamee ne war nañ koo watte ci weeru koor mooy ak sell sellal suñu bakkan ci lépp loo xamee ne suñu boroom daf koo tere ndax buñ fàttali ko weeru koor du bàyyi lekk du bàyyi naan dong waaye bokk na ci nga bàyyi wax ju bon bàyyi jëf ju bon alayhi salaatu wasalaam dafa man lam yadaa qawla zuuri wal xama wal amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an a taamahu wa sharaabahu képp koo xamee ne bàyyiwoo wax ju baaxut wala jëf ju baaxut suñ borom amut soxla ci nga bàyyi lekk bàyyi na kon koor mooy suñ cër yépp waar woor te nag perte dëgg dëgg dëgg mooy ki ñëw yowmal am àndaale ak tooñ kooku mooy ki perte ndax suñ boroom moom mën na laa jéggal li nga ko def lépp waaye suñ biir moom bu jéggale amul suñ biir ci àdduna alaaxira mu amul jéggale képp ku tooñoon nit boo ñëwee danay jël tuyaabaam dañ jël sa tiyaaba jox ko ko boo demee ba amatoo tiyaaba ñu jël ay ñaawteefam di la ko sëf yàlla nañ ci yàlla musal loolu moo tax alayhi salaatu wasalaam wax ne atadruna manil muflis min ummati qaalu almuflis man laa dirhama lahu wala mataa qaala sallallahu alayhi wa sallam almuflis min ummati man yati bi salaatin wa siyaamin wa zakaatin wa yati wa qad shatama haada wa sabba haada wa qadafa haada wa akala maala haada fa yaxudu haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi fa in faniyat xasanaatuhu qabla an yaqdiya maa alayhi axada min xataayaahum wala uxida min xataayaahum fa turi fa turixat alayhi summa ulqiya fi nnaar wal ayaadu billah alayhi salaatu wasalaam wax na ne ndax xam ngeen kan moo perte ci sama xeet saxaaba yi dafa daje alayhi salaatu wasalaam laaj leen loolu ndax xam ngeen kan moo perte ñoom nañu jàpp ne perte moom liñ ci xam mooy ku doon yaxantu ba amatoo dara rek ñu ne ko ah ñun di perte mooy ku amatut xaalis amatoo marchandise loolu de xanaa mooy perte alayhi salaatu wasalaam ne loolu day du dëgg-dëggi perte dëgg-dëggi perte mooy ki ñëw yowmal qiyaam àndaale ay julli àndaale ay koor àndaale ay joxe asaka waaye dafa ah, xasoon dafa xasoon mbokkam ŋàññoon ŋàññoon kaneen waaye lekk alali diw waaye rayoon diw nee na kooku day bu ñëwee yomal xiyaam mooy ki nga xamee ne dafa doon dafa doon tooñ dafa doon tooñ moroomi jaamam ci àdduna donte nag mu nga nekkoon di jaamu yàlla waaye dafa dafa doon tooñ ay dëkkandoom ak tooñ ay mbokkam nee kooku day bu ñëwee bu fekkee jaamu yàlla yooyu mu andi dañ koy jël di ko fayee ñam doon tooñ bu demee ba jaamu yàlla yi jeex ñu jël euh, ñaawteefu ñam doon tooñ di ko ko sëf bu mujj suñ borom tàbbal ko sawara yeneen ci yàlla musal kon suñ biir war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax fexe ba maanu suñ biir koo munta defal lu baax nga maanu ci moom ndax ab jullit Euh, alal aqal li a li gën a néew ci comportement bu mu war a def bu mënta defal jullit ñi lu baax te loolu la ñépp war a def bu mu toog kenn na maandu ndax suñ boroom moo ne inna allaha yaamuru euh, yaamuru bil adli wal ihsaan nee na moo santaane maandu maandu kon farata la bañ a ndax ni ma ko waxee suñ borom moom yërmaane bari na loo tooñ man la ko jéggal waaye doomu aadama bi moom boo ko amee ak ci àdduna te jéggalu loo ko delloo woo ko ci àdduna yow man xiyaam moom ak fayantoo moo fa am waaye amut jéggalante kon maandu war nañ ko jàng ci koor di ko taxaw moom nag ba koor gi ñëwaat waaye bokk na ci liñ mën a jële ci koor bi mooy pas-pas bu dëgër yitte ju kawe yitte ju kawe ndax ak jullit yitteem li mu war a doon wur te nekk àdduna waaye mooy ngërëmul suñ borom moo war a nekk yitteem waaye itam bokk na ci li ñu war a jàngee ci koor bi ak muñ ndax muñ mooy lislaam diine mooy muñ ndax weesuut muñ ci jëfe ndigal suñ borom yi ak muñ ci bàyyi ay teraan te loolu mooy diine moo tax alayhi salaatu salaam koor weeru muñ la ko la ko la la ko tuddee ndax mi ngi wax ne sawmu shahri sabri wa salaasati ayaamin min kulli shahrin yuzhibna wa xara sabri nee na weeru muñ di weeru koor ndax xaw nga muñ da ngay muñ bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi wax ju ñaaw bàyyi wax ju bon bàyyi jëf bon nee na ku woor weeru muñ weeru koor ak weer wu nekk nga woor ci ñetti fan nee na képp ku def loolu suñu boroom dana fóot sa xol ci ay tawat ay jàngoroy xol kon loolu lu mat a sàmm la maanaam woor weeru koor waaye yemoo ca weer wu nekk nga woor ci ñetti fan alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko def suñ boroom dana la musal ci bon boni xol yal nañ ci yàlla yal nañ ci yàlla boole waaye itam dafa tuddee weeru koor ne mooy ak mooy barrière la ko tuddee barrage boo xamee ne day dox diggante nit ki ak ci bàkkaar ci àdduna waaye itam day dox diggante nit ki ak sawara ndax ku ne xam ne ne am na bunt boo xamee ne ci bunt àjjana yi woorkat yi rek ñoo fay jaar woorkat yi rek ñoo fay jaar kon ni woor nekke di doxee diggante nit ki ak i noonu lay doxee diggante nit ki ak sawara moo tax alayhi salaatu wasalaam ne asiyaamu junna minan naari ka junnati ahadikum minal qitaal ni nga xamee ne ñii ñi ñiy xeex dañuy sol ay gilet yoo xamee ne ku leen tiire bal du dugg li leen di fegal bal yi nee na yi tam noonu lay fegale nit ki ak bàkkaar waaye noonu lay fegale nit ki sawara kon koor mooy yitte ju kawe la jàngal loolu lañ ciy waxtaan te loolu nag mooy ak taalibe loolu yitte ju kawe mooy ak taalibe képp koo xamee ne gërëmul yàlla rek mooy sa yitte gërëmul yàlla rek mooy sa bëgg-bëgg na nga xamee ne ab murid nga te loolu Cheikhul Khadim moo ko wax innal murida la yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada nee na ab mooy ki nga xamee ne ngërëmul yàlla rek lay sax moom lay dàkk moom lay ci moom lay jëm moo moo yitteem xutba bi ñu doon jàng léegi mi ngi ciy wax naan fa tuuba li man axada ma ata bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbi salaama muxtisul wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr la ila alkadari wa dayr waylu li man lam yaxud ma ata bihi muntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bi intiqa nee na tuuba mooy texe ñeel na képp koo xamee ne li nga xamee ne yonente bi alayhi salaat wasalaam andi na ko nga ngoñ ci nee na kooku mooy ki texe waaye itam ki texe mooy ki nga xamee ne yitteem day kawe jëm ci lu baax maanaam képp koo xamee ne lu baax rek nga bëgg lu baax rek moo la tax a jóg nee na yaay ci texe waaye yitteem du nekk loo xamee ne lor lay doon lor nit ñi wala ay ndax-ndax waaye itam képp koo xamee ne li yonent bi indi alayhi salaatu wasalaam muy islaam ak sunna ngëmboo ko jàppoo ko na nga xamee ne yàlla ñu yàlla musal sa war a mooy nag sa sa mujj yàlla na ci yàlla musal kon yooyu bokk na ci liñ mën a jële ci weeru koor mooy dëgëral suñ pas-pas ak suñu yitte kaweel ko nga xamee ne suñu yitte dootu nekkati àdduna wala ay bànneex ndax àdduna moom ni ko suñ borom di melele ci alquran nee na ab nawet la kon nga xam ne nawet nawet bii ñu weesu gisatul lu bokk ci nawet ba fi mu toll nii gisatul am ñax mu wert gisatul dara àdduna itam lu mu neex neex ci nii rek lay mujjee kon nit ki yitteem dafa war a kawe àdduna waaye ngërëmul yàlla rek moo war a nekk yitteem ndax mooy li nga xam ne mooy sax moo lay may kii texeg àdduna may la ko texeg àllaaxira te li ci firnde mooy ñi nga xamee ne ñoo gën a ñoo ëpp am koom ci àdduna ñoo gën a riche boo demee ñoo ñu ëpp jafe-jafe boo demee fa la xaru yi gën a bare fa la sa bopp yi gën a bare fa la dund gu naqar yi gën a bare kon dund gu neex ajuut ci dajale alal waaye ci gëm yàlla moo ci jiitu moo lay may daluk xel waaye bokk na ci lin mën a bind yin mën a jële ci weeru ko mooy jàppalante ak dimbalante suñ biir ndax kat euh, jaam yi ñooy njabatu suñ boroom te ki ki gën ci yéen nag mooy ki ëppal njariñ ci njaboot gi kooku moo gën ci suñu borom moo gën fa suñu borom alxalqu ayaanullaahi alayhi salaatu wasalaam nee na njabootu suñu boroom mooy nit ñi ki gënal yàlla nag mooy ki ëppal njariñ nit ñi kon jaamu yàlla ci jàkka ji baax na lool jaamu yàlla ci koor baax na lool waaye nag di dimbali nit ñi dara gënu ko mooy maanaam jaamu yàlla ci nit ñi loolu bokk na ci li nu war a bind yi ñu war a jële ci weeru koor ndax ku ne xam ne ne weeru koor bokk na ci li muy jëmbat ci ñi nga xamee ne ñoo bari alal day jëmbat ci seen xol yi yërmaande ndax danañ xam ne ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk jaxasoo diiru bu weeru koor wi lu metti la waaye am na ñoo xam ne nag ci loolu leen dëkk mooy ñi amut alal kon li nga xam ne moom la ñi amut alal dëkke di ko yëg te mooy ak ñàkk weeru koor wi ñëpp ci maase ñëpp ay boole ñàkk ndax kenn du lekk kenn du naan kenn du def loo wurta def ndax nit moom ñaare lu mu ñàkkut rek du xam njariñ la suñ toll nii ku ci nekk ci ñun yaa ngi jàmbat te suñ borom kat jox na la ak wér waaye yaa ngi jàmbat bala ngaa xam xéewalu wér nag tawat dalaa dalaa dikk dalaa dikkal kon weeru koor loolu bind yooyu bind loolu lañ ci jànge maanaam jànge ci Euh, li nga xamee ne moom la ñu ñàkk di dëkke te muy mettitu ñàkk lekk ah mettitu ñàkk naan te ñàkk koo am rek moo ko te am na nag ñuy dëkke noonu loolu moo tax joxe baax na lool waaye ci weeru koor nag la gënee alayhi salaatu wasalaam mu gënoon a tabe ci nit ñëpp waaye bu ko koor ñëwee moo daan gën a tabe ngelaw lu boyal wa kaana ani kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwada ma fihi bil xayri min arriixil mursala waaye itam mi ngi wax naan képp koo xamee ne jox nga ku woor mu dog na nga xam ne suñ borom dana la fay lu tolloog tuyaaba jëm am ci koor ga te du yàq ci tuyaabam dara man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yanqus min ajri saa'imi shay'an kon joxe ak amal njariñ nit ñi bind bu ñu war a jàng ci weeru koor te yóbbaale ko nag ba koor gii ni ba koor gii ni jëmaat di ñëwaat fexe ba bu kenn sàkk ci ñun loo xamee ne am nga ko te joxoo ko ko sëriñ Tuubaa bu weeru koor masaan ñëw da daan ànd ak mbégte nee na ñi ñi amoon soxla ci moom ñëpp weeru koor lañ daan dàkk ak weeru gàmm ndax ñaari weer yooyu moom lu ko ci waaye ñaan rek mu may ko nga xam ne koo ko masaan ñaan dara daraan la xanaa da nga ko bëgg a waajale weeru mag wi te loolu ni ma ko waxee ci alayhi salaatu wasalaam la ko jële li ñu wax lépp nag li koy tënk te suñ borom wax ne weeru koor moo moom la jural mooy ragal yàlla ragal yàlla moom mooy dajale lépp loo xamee ne suñ borom santaane na ko waaye mooy nga sori lépp loo xamee ne suñ borom tere na ko loolu mooy ragal yàlla kon weeru koor dañuy tàggat dañuy toqi dañuy jàngal ngir ñu mën a àgg ci maqaama yi ragal yàlla te maqaama nag mu kawe la ndax yàlla mu wax ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun nee na yéen nga xamee ne yéen gëm dama farataal ci koor ni ma ko farataale ci ñi leen jiitu ana lu tax ngir ngeen jële ci ragal yàlla kon ragal yàlla moo tënk li ñu wax lépp mooy li nga xamee ne suñ borom képp ku képp ku ko ragal moo la warlul texeg àdduna ak texeg àllaaxira وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب suñ borom nee na képp koo xamee na ragal nga yàlla xat-xat boo nekk maa la ciy génne man suñ borom waaye itam maa lay wërsëgal foo xamee ne foogoo ko woon ndax ñu bari jàpp ne ne sabab lu wala liggéey mooy joxe wërsëg te nag yàlla mooy wërsëgal doy na ci rek Cheikhul Khadim mi nga xamee ne mooy sunu yaakaar ku ne xam ne ne amutoon métier moo xamee ne man ngaa wax ne moom la daan def ngir sàkku ca alal waaye li ko daan dikkal ci alal kenn xamul nu mu ndax moom li mu daan loo nee na mooy yonent bi ak alquran waaye amutoon métier moo xamee ne mën ngaa wax ne amutoon ay tool wala fu mu daan liggéey amut amutoon loolu dara waaye àdduna daf ko wut si kon loolu day war day day waral ne day day saxal ne ragal yàlla rek moo am solo daana wax naan doy na ci rek bàyyee sa bopp yàlla doy naa ci firnde man man Cheikhul Khadim ndax bi ma bàyyee sama bopp doy na ci firnde ndax bi muy tukki am na te kenn ñëpp fi leen ko bàyyi dem ca géej ga lu mat juróom ñetti at daanaka nekk ci loxoy tubaab bi lu mat fanweer at ak ñaar waaye gëm-gëm gëm yoroon ak pas-pas ba taxoon ñu yóbbu ko bi mu ñëwee dafa gën a màgg dafa gën a dëgër mënuluñ ko dara kon loolu day wane ne bàyyee sa bopp ak yàlla rek moo am solo nit ki war nay sabablu ndax sunna la war nay liggéey waaye nag xolam moom da cee war a fas ne teraanga liggéey ba joxewu ko waaye yàlla moo koy joxe liggéey ba joxewu ko yàlla moo koy joxe nit ki sonn na coono yu metti te taxut mu am alal nga gis koo xamee ne daanaka day bari alal lool te daanaka du sonn kon dañuy liggéey ngir yàlla boo ko santaane waaye wërsëg moom suñ boroom moo koy joxe li ñuy jeexala mooy euh, aaya bi nga xamee ne Cheikh Abdul Ahad daana wax naan Sëriñ Tuubaa néewaa na jataay bu mu teew ba jóge fa te jàngiwut aaya boobu te mooy saabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard uiddat lilladina amanu billahi wa rusuli dalika fadlullahi yuti man yasha wallahu dul fadli al azim nee na Sëriñ Tuubaa néewaa na jataay bu mu toog te jàngul aaya bii ma jàng aaya bii li li ñu fii suñu borom di digal mooy nan njëkkante ana lu ne njëkkante njëggalu suñu borom waaye àjjana àjjana joo xamee ne yaatuwaayam mi ngi toll ne asamaan ak suuf nee na ne na ko jullit ñëpp njëkkante bu bu mu nangu kenn njëkk ko ci jéggalu suñ borom wala àjjana ana ñan nag ñoom la ko ñan la ko suñ borom waajale ñan la koy bàyyil mooy ñi nga xamee ne ñoo gëm yàlla waaye gëm yonentam yi nee na ñooñu la suñ borom dencal àjjana waaye ñooñu la suñ borom dencal njéggal kon yàlla nañu yàlla saxal ci gëm yàlla yàlla nañu yàlla saxal ci li neex Sëriñ Tuubaa nee na loolu nag mooy ngëneelul suñ boroom bu bu suñ borom waxee ngëneel rek loolu la ci jublu mooy gëm yàlla ak jëf-jëf ju baax wallahu dul fadlil azim nee na yàlla mooy borom ngëneel li nga xame ne moo gën a mag kon ci gàttal loolu lañ war a mën a jëlee ci weeru ko ñi xam ne nag buñ ci yàlla buñ ci yàlla dimbalee buñ ci yàlla dimbalee ñu ànd ak moom ba weer wa dellusi mën nanoo rafet njort ci ne suñ ko suñ borom nangu na te mënoon a rafet njort ci ci itam ci ne ndax man ngaa bañ a ba pare suñ borom di la fay euh, euh, tuyaa bay koor Cheikhul Khadim nee na naajaatukal yawma wa qabla al yawmi wali jaxaltal fitra fawqa sawmi ci xasida waqaana xaqan mi naan maa ngi déyanteeg yow yow suñ borom maa ngi déyanteeg yow ndax Cheikhul Khadim xasida yëpp suñ borom la ci lu ci déyante lu ci waxal nee na maa ngi déyante ak yow ci bis bi ak bis bi ko jiitu yow mi nga xamee ne yaa ma defal sama dog gën a kawe sama koor kon Serigne Touba saa su nekk bu wóorul sax ci la tiyaabam di gën a bare ci bu wooree te loolu li ñu koy may nag mooy li ñu jàng ci koor bi ñu taxoog moom saa su nekk yàlla nañ ci yàlla saxal ñoo ngi baalu àq ñëpp di jéggulu ñëpp di ñaan suñ borom euh, may ñu teew ko ay déwén yu bare bare bare bare te yàggal fi suñu kilifa yu tedd bi te ci jiitu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Cheikh Mouhamadul Mahfouz yàggal ñu si ñun rek di yàgg fi jullit ñëpp def ci àdduna bi jàmm ndax jàmm nag ci la lépp xaj ah guerre bi xamee ne ah ñu koy dégg yal na ko yàlla fay waaw euh, ñi nga xamee ne ñoo fi ñëwoon ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir bëgg mu ñaan ci ba mu fay ah yal na ci yàlla rus Cheikh Mouhamadou Mountakha ba fay ko ndax euh, ay moom du yem ci euh, bopp boroom yal na yàlla defal jàmm ñu ngi dégg lu baax di wax ne kullu aamin wa antum bi xeyr wa salaamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن شكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني